la ca dolliku. la ca dolliku. mooy sama digganteeg ñi ñi ñi ñu seqal réew mi. mooy ñi sama diggante ak ñi ñu seqal réew mi. moo xam kilifa yi diini yi la. moo xam kilifa yi diini yi la. moo xam ñi yàlla dénk doxinu réew mi. moo xam ñi yàlla dénk doxinu réew mi. ñoom li ma seq ak ñoom. ñoom li ma seq ak ñoom. ndax man kat. ndax man kat. taluma dara taluma dara. ndegam la ma weesu. ndegam la ma te lu ci woon dara te lu ma ci woon dara. yàlla dimbale na ma nag yàlla dimbale na ma nag. may may may ñoom maslaa. may dund ñoom maslaa. ak ci ñëpp nag. waaye fekk na. waaye fekk na. tëlu dara tëlu ma ci dara. dara. lu dul sëriñ bi. lu dul sëriñ bi. ko tëlu ko. lu dul am njëriñu sëriñ bi. lu dul am njëriñu sëriñ bi. tëlu nekk lu neex sëriñ bi. lu nekk ma ko. waaye nag maslaa mënut a ñàkk. waaye nag maslaa moom mënut ñàkk. ci maslaa laa laa egsi fii. ci maslaa laa egsi fii ma egsi. ànd ak ñëpp ànd ak ñëpp. tàmbalee ko ci samay kilifa. tàmbalee ba am seen gërëm. ba am seen gërëm. kon. kon noonu rek la. nan góorgóorlu ñëpp. nan góorgóorlu ñëpp. te xam ne.